tu nga wax ci barrage mondial Qatar 2022 Sénégal ñaari jongante ñoo ko ciy xaar faaw nag bu jëlee ci ndam su bëggee teew. bu mhm. bëggee teew foofu ca ca Qatar dañu taxaw nag tey ci benn chiffre bi nga xamante ni moom mooy euh, ñeent fukk ak euh, juróom-ñaar ndaxte. Mhm. Euh, ñeent fukk juróom-ñaari bés a ngi nii ginnaaw ba ñu footballé ñu nag waa mhm. Égypte ca finalu Coupe d'Afrique des Nations donc bu amoon plus précisément le 6 février bi passé donc voilà ce vendredi mars à partir de 19h30 Sénégal mooy nar am match comptant match aller comptant pour les barrages euh, de la Coupe du monde Qatar 2022 euh, la zone euh, Afrique mu benn match bi nga xamante ni dina am retour naturellement qui est prévu le 29 mars au stade Abdoulaye la première sortie des Lions gannaaw ñu gagné Coupe d'Afrique des Nations ca Olembe ca Cameroun ak Égypte ñoom ñaar nag ku ci nekk bokk na ci Coupe du monde bi passé 2018 bi donc kon loolu muy firndeel ne rek kenn ci ñoom ñaar dina manqué le prochain mondial. Ah oui, on espère que ce sera l'Égypte. on espère on <laughs> l'espère voilà on le souhaite. mais Marcel ñetti at ci ginnaaw notamment en 2019.

joueurs yi nga xamante ne ñoom fu mu nekk ni bokk nañ ci groupe buy nar a jonganteeg euh, Égypte ca Caire mm. euh, ñoom bokkoon nañ tamit ci euh, final boobu mu di Sadio Mané Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye Ismaïla Sarr ak Keita Diao Baldé mi nga xamante ne moom dafa duggoon en deuxième période un remake mêmes acteurs au casting on se le demande c'est quasiment la même chose peut-être Égypte bi nga xamante ne sélectionneur portugais bi di Carlos Queiroz moom dafa def appel à un groupe de joueurs contrairement Sénégal euh, mi nga xamante ne 26 joueurs donc pour cette double confrontation 9 joueurs nag juróom-ñeenti joueurs yi nga xamante ne ñoom ñu ngi woon ci Coupe d'Afrique ba ca Cameroun ñoom euh, bi yoon sélectionné wuñu leen ku mel ni Ahmed Egazi Ramadan euh, Sobi ak Xam Tawfik ñoom nag dañu blessé waaye kii di Mohanad Lahsen Mahmoud Gad Marwan Daoud Abdallah El Saïd Ibrahim Adel et Mohamed Chérif ñoom choix du coach la moom moo rek décidé ne du leen ci du leen ci boole mais par contre l'autre attraction c'est gardien titulaire ndaxte dañuy faral fàttaliku ne rek

les absents on le disait la dernière fois Alfred Gomis Seny Dieng ñoom tamit blessé Ibrahima Mbaye Joseph Loupi euh, ñoom donc les quatre joueurs qui sont euh, absents les quatre champions d'Afrique yu dul nar a bokk tey ci et puis Youssouf Sabaly ñu ngi ko doon la dernière fois il a effectué son grand retour au sein de la tanière soxna Fatou. aywa ñu def euh, Égypte. donc seen parcours ci éliminatoire yi balaa ñuy yegg fii ñoom ñaar ci ceeg Angola euh, Gabon ak Libye ñoom ñoo seqoon groupe boobu noonu euh, pharaon yi daal di terminer largement en tête avec 14 14 points sur 18 possibles donc 6 matchs 4 victoires 2 nuls 10 buts inscrits 4 encaissés donc différence de plus 6 devant donc le Gabon daal jël pe Gabon amoon juróom euh, ñaari points Libye itam même chose et puis Angola moo jëloon dernier avec 5 points Égypte donc divisé une quatrième participation mondial gannaaw bu 1934 amoon ca Italie 90 bu amoon tamit ca Italie et puis donc plus récemment notamment en 2018 euh, euh, ñu taxaw itam xool le parcours du Sénégal euh, lors de ces deuxième tour bi groupe H la nekkoon moom Congo Namibie ak Togo les Lions terminent eux aussi largement en tête avec 16 points sur 18 possibles 6 matchs 5 victoires un seul match nul on se le rappelle c'était contre le Togo donc 15 buts inscrits différence de plus 11 donc ñu daal di jeexale premier devant le Togo bi amoon fukki poñ Namibie amoon ci juróom ak Congo amoon 3 points et Sénégal moom tamit di viser une troisième participation la Coupe du ba mu euh, njëkkee bokk en 2002 en Corée du Sud et au nekk nag euh, ku ci qualifié bi a doon boulet mm. euh, nga nar a qualifié pour fois deux fois de suite à la à aywa ñu wax ba tey sama dernière question moom mooy euh, taxaw seetlu bi euh, soo xoolee li xew les derniers développements est-ce que Sénégal mujjul nekk la bête noire de de de de l'Égypte. de l'Égypte on a envie on de le dire ndaxte euh, lii mooy seize seize ans bi nga xamante ne Égypte gañeetul Sénégal keroog 2006 la woon ci benn Coupe d'Afrique bi nga xamante ne Égypte moo ko organisé woon. Mhm. en demi-finale lañ daal di daje Séné Égypte daal di dóor Sénégal de buts à un et donc le Sénégal qui reste sur deux victoires. victoire donc éliminatoire CAN 2015 2-0 1 et un match nul mhm. euh, lors de la finale CAN 2021 bon c'est c'est considéré comme une finale parce que les tirs au but euh, comme une comme match nul ndax but bokkul ci euh, ci temps de football bi et puis sur mhm. les trois dernières confrontations donc c'est un bilan largement en faveur du Sénégal historique des confrontations 13 au total yu ñu jongante ñoom ñaar toutes compétitions confondues 5 victoires pour le Sénégal 2 matchs nuls 6 victoires pour l'Égypte 6 buts marqués pour les Lions lu ñu bëgg rek mooy refaire le coup du 7 mars 1986 keroog ba Sénégal di dem dóori Égypte euh, au Caire euh, lors du premier tour de la qu'on aura aujourd'hui aussi euh, six victoires pour le Sénégal. merci beaucoup Marcel Farba Maroun euh, wax nga ko Maroun pardon wax nga ko euh, tey dañu naan Caire 2022 peut-être mais amoon na fi Caire 86. Mhm. Euh, le fameux but de Thierno Youm Malick Thiandoum xale bu ko déggul itam mën nga ko nettali ndax taarix bu rëy boobu. waaw dëgg la dëgg la xam nga ñu nag Égypte moom. Mhm. Euh, dañu yàgg di daje. Euh, keroog rek maa ngi koy fàttale xale yi ni leen ker 86 ñun ñëpp dañoo cotiser woon. Mhm. pour yóbbu équipe bi euh, suñu yaay yi joxe ay ñaar dërëm ñuy joxe ay juróom. Mhm. ñun élèves yi kenn ku nekk loo am nga joxe ko ñu waajal équipe bi yóbbu leen keroog bi nga xamee ni war nañu daje ak Égypte. boobu dañuy bàyyi pays organisateur mu tànn ku ko neex mu démarrer ak moom. ñu ne comme Sénégal ñoom depuis Asmara 68 ba léegi. compétition bi nañ leen nañ nañ leen nañ leen toccami ko ñooy nooy neex bi. Hmm. waaye keroog dootuñu ko defati. Ah, hmm. but de Thierno Youm euh, ñu gagné leen boobu 16 ngi nii aussi mënuñu fexe ba ba ba dóor ñu te defe naa ni ci match bi nga xam ni ci la ñu jëm euh, Sénégal dafa am lu ñu tuddee ascendant psychologique ci ñoom. Hmm. ndax ñun ñoo leen gagné woon te ñoom ñoo ëpp lu ñuy ragal ci ñun que ñoom que ñun lu ñuy ragal ci ñoom. donc man je pense que adversaire u Sénégal sax nekkul Égypte mooy ñun ñooy étoile ba ñëw nañu wàccaat ci suuf dem à la conquête du monde te je pense que loolu mooy rek rester humble comme ni ko Aliou Cissé di waxee rester concentré et déterminé mm-hmm. te jàpp nañ ni diggante Sénégal ak Égypte différence bi méttiwul trop et score yu bari yu yu yaatu mënu ci am mm-hmm. mais Sénégal quand même am nañu taxawaay bu nga xam ne am nañu yaakaar mm-hmm. ni on a une bonne assise défensive on a une bonne attaque te égyptiens yi bu ñu songee dootuñu ko defati fàttali ne wuñ ñu. non ñun ñoo leen mujjee gagné seen dëkk sax donc mhm. euh, l' espoir est permis. waaw euh, te dëgg final bi ñuy wax nii dañ ñoo gagné sàcc. mais surtout que nag bon am na loo xamee ne aussi foofu foofu ñu rafetlu ko. Mhm. parce que 2014 boobu ngay wax Ibou yaa nga fa woon. Mm-hmm. Euh, bi Sénégal ñëwee foofu gis nga avant match bi nu mu demee woon. contexte bi ça n'a rien à voir ak li ñu gis fii. Mm-hmm. ak li ñuy gis yeneen réew Afrique gis nañu Ghana ak na naka lañ leen teeroo bi avion bi. <laughs> bi bi wàccee na jour yi doon wàccee xam nga loolu c'est pas sérieux pour pour des équipes de cette envergure. Euh, Maroc tamit gis nañu la mu daj euh, fële ca RD Congo. Mm-hmm. ñun dem nañ Égypte malgré. ci final bi ñu jógee. yaakaaroon ni tension dina gën a doy waar mais ça a été bien géré. bon on se dit que peut-être que match bi tamit noonu lay demee te ñoom tamit suñu ñëwee fii. tamit ñu fexe ba. delloo mosu fee ñoo am problème Sénégal loolu sax ñun lañ wax ni pourquoi bu ñu demee fenn ñu ñuy bundu te bu ñu. surtout avec euh, dem nañ fi Nigéria euh, ñu wàcceel ñu ay xaj. public ba wàcc et commencé dugg ci biir stade bi lu nekk def nañ ñu ko tu vois mais bon ci Égypte vraiment dañu respecte Sénégal mm-hmm. ci ci ci match bi bi ñu demee depuis l'aéroport toutes les conditions de sécurité mettre nañ ko ci équipe bi. jox nañ leen hôtel bu baax fi nga xam ne fa la ñu war a dem entraîner dem nañ fa entraîner. Mm-hmm. donc y' a pas eu de tracasserie. bon xam nga loolu dina jafe yooyu pratique yooyu comme dina wàññi de plus en plus parce que réseaux sociaux yaa ngi fii léegi nit ñaa ngi xam bu njëkk yooyu amutoon. Ah, mais dafa kam rek mais dina changé non léegi non bu dee national non kenn du ko gis. dégloonte leen s'il vous plaît su ko defee waxtaan bi. xëy na waa Nigéria avion bi indi tamit bu bu méngoog moom. Ah, ah, ah. fédéraux yu Sénégal aussi il faut signaler qu'ils fait euh, un excellent travail. donc euh, am nañ Sénégal dafa am expérience di voyage yi maintenant ak euh, fédération bi nga xamante ni am nga ko ñuy jiitu def liggéey bu am solo yaa ngi wax sànq même bi ku nga xam ne ni penalty Diomansy Kamara bu penalty la woon. c'est l'arbitre camerounais moo def lu ko neex rek mais léegi VAR am na. sàcc moom match teg léegi yombatul gis nga Macédoine ngi ni Italie la fekk du dina am ay yoo xamante ne mënu cee ñàkk sur la bataille psychologique mais Sénégal à mon avis équipe boo xamante maintenant champion d'Afrique nga mm-hmm. joueurs yi c'est des pression bi lu mu diis diis dinañ ko atteindre pour jëm fa obtenir au moins un bon résultat pour xaar mm-hmm. mardi prochain mais mardi bi tamit soxna Fati mm-hmm. billet amatul waa fédération bi nañ wax lu leer parce que ni démb commissaire jëppal nit ñi fees nañ fa dell nit ñaa ngi war amatuñ billet loolu ma jënd billet waaye xaw ma sax <laughs> supporter am bi ngeen waroon a xam ne faaw mu am ku mu xoos mais li nga wax am na solo non li nga wax dafa am solo chéri dama lay tooñ li nga wax am na solo bii amul ci réew mi te gars yi a ñoom ñoo nar a jël billet yi aaki moo ko jaay ko au prix waa léegi marché noir jot na da ngeen leen da ngeen leen di baal bu ñuy wax football dañuy fàtte ne ñu ngi nekk en direct du ñu dégloon te dañuy mujjee di war a di def yëpp mais da leen di da leen di baal ay Fall ma fàttali leen ñaareelu pàcc bi daañu dalal Seydina dina Laye Diop